bon benn jafe-jafe amul d'abord ci gaz bi comme ni ma la ko waxee léegi ci wàllum tubaab benn jafe-jafe amul ndax bi ngay ñëw fii rek déjà ci bunt bi gis nga ni que ni fekkoo fi buuxante fekkoo fi dara jafe-jafe gaz moom defe naa jeex na fi depuis 2008. Euh, bi ci administrateur bi waxee jël ci ay engagement defe naa boobu ba léegi nii dundatul ay jafe-jafe gaz mais li am moom mooy ñun rek déjà au niveau de l'eau bu sunu capacité yi nga xam ne ci la def gaz xam ni boo ko xaymaa mi ngi nekk ci ay 6200 tonnes tey ma fi may wax ak yow nii maa ngi ci 1200 tonnes ci capacité yi mu jox ma autonomie boo xamante ne si xam nga fukki fan ak benn la muy 11 jours te bu weesoo lool am na yeneen bato yi ñëw la cinq am na bateau muy ñëwaat le 18 am na bateau muy le 20 aussi am na bateau yi ñëwaat donc cest à que problème mu gaz moom mënatu fi am biir Sénégal li am mooy. Euh, dafa am ci kenn ci acteurs yi koo xamante ne si xam nga sunu naataango la nekk ci secteur bi amoon ay butéel yoo xamante ay butéelu 12 kilos la yoo xam ne da jóge rek ñu koy jëlee ci wàllum bitim réew ñëw te du jaar fi mu war a jaar maintenant nag léegi nag état ni léegi bouteille ñu tudde ko les bouteilles neutres bouteilles yooyu nag moom la état bi wax ni léegi nan ko formaliser mettre ko en en conformité yooyu nag buñ ko retirer ci marché bi ah faaw nag mu am ña ko yoroon xam ni ay bouteilles lu kilos la dinañ yëg benn pénurie beneen bi ci topp moom mooy tamit clientèle bi nga xamante ne si moom la kooku yor donc clientèle boobu tamit xam nga dafa wàññeeku parce que secteur boo ci nekkee te investiroo amoon ñoo xam ne dañuy topp sa butéel rek bu demee ba investiroo butéel yi manqué tamit faaw ñu yaakaar ne pénurie la fekk pénurie amul mais fii boo fi ñëwee boo demee ba ci boutique yeeg yëpp di nga gis que ni butéel yi en gaz bi en parce que ñaari acteurs yi gën a yor xam nga wàllum gaz yi fii Sénégal ñaar la mooy Lobou Mame Diarra Bousso ak Touba Gaz ñoom ñoo yor presque lu tolloog xam nga plus de 60 pour cent ci paaru marché bi te tey amuñu benn jafe-jafe amuñu jafe-jafe ci bouteille amuñu jafe-jafe ci gaz amuñu jafe-jafe ci stockage